jëfa moom mi ñu fi tàgge woona démb Fatel Sow jabaru Ngaaka Blindé King Baba moom Fatel Sow ab vidéo ambiance la ñu ko gis ak ay bongomaan kanamu jëkkëram moom King Baba Ngaaka Blindé soxnaam si di Fatel Sow naka bongomaan yi ña ngi koy wayal nan ko Ngaaka yow la bëgg su ko waxee yow la bëgg su ko waxul yow la bëgg tel naka kaddu yooyu ko dugg ba tax muy tuuri xewal daara fa naka di jooy ay jooyam ndax kaddu yi nga xamante ni ñu ngi ko koy dégtal naan ko Ngaaka Blindé yow la bëgg loolu moo fees xelu Fatel Sow naka ba mu tuur ay xewal image bu ñaaw bu sénégalais yi di réseau social bi moo di image yu rappeur bi nga xamee ni moo di Jahman Express moom Jahman nag ci ab concert boo xamante ni ñëwoon na am benn soppeem bu daw daal di yëg ca kaw podium ba waaye garde rapproché bi nga xamante ni moom moo àndoon ak kii di Jahman daal daal di jàpp xale ba sëq rek daal di sàndi mu daw wutali mbooloo ma loolu nag nekk na ci gëtu sénégalais yi loo xamante ni ñi ngi koy naqarlu jamono ji ci réseau social bi di wax ak kii di Jahman acte boobu ki nga xamante moo di garde rapproché ba def na ko ca kaw xale ba moom waroon na taxaw wax ca ci saasi ndax gis nañ yu bari yu mel noonu nga xam dafay dal kii di Wally Ballago Seck ay soppeema dañuy daw di ko fekk ci kaw seen waaye yi danaan garde corps yi bu leen kenn laal yéen a xoole ba ñu daw yéeg fii waaye jamono defeewu ko noonu waxul sax ci li jëm ci loolu loolu nag jamono ji ci biir réseau social bi nit ñi ñi ngi ci yëy di yàbbi taw buy dafa tuur jamono ji ci réseau social bi moo di ay vidéo le motif yoo xamante ni ña nga koy dendale kii di Mariam fay Sall taw la naka ma ngay gën a rëy ñu di ci yëy di yàbbi waaye naka ba léegi rek coow li la muy bari bari ba léegi kenn gisagul ab vidéo ndax kii di avocat doomi nasaraan di Juan Branco moom ak Ousmane Tounkara ñoom ñaar ñooñu naka ñoo yëkkati woon ay kàddu di wax ne am nañu ay vidéo le yu Marème Faye Sall waaye boobaak léegi nag ci biir réew mi ak biti réew amugul kenn koo xamante gis nga yooyee vidéo wax ci nakaar ak tiis bi nga xamante dal na ci kaw Mamour Diallo moom Mamour Diallo naka ab sërëm bu moo génn àdduna niki tey jii moom Mamour Diallo gis nañu ko ci réseau social bi sénégalais yu bari ña nga koy jàlle sërëm boobu te di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm fois-ci la joie de Moustapha Nam ndax moom Moustapha Nam ñoo ko ko gis ak soxnaam soosu di Virginie ci ab vidéo ñu di ci wane seen mbégteeg contentement ba nga xamante ne am nañu ko di gën a fësalaat seen bëggante ak ñoom naka seen diggante jamono ji gis nañu ko ci réseau social bi ñu bari ci sénégalais yi dafa ñu lu dul daal di cay kontaan ndax nee nañu mbëggeelu xale la dox ci diggante Moustapha Nam ak Virginie coow lu dox ci diggante Awa Baldé ak Aziz Aly Ndiaye ndax moom Awa Baldé nee na kii di Abdou Aziz Aly Ndiaye daf ko tiriande ci boo xamante ne baax léegi forage daal ni xëdéem gisul terrain gisul lay nurok terrain moom naka ma ngay sàkku ci Aziz Aly Ndiaye par ya nga xamante ni woon na ko jox ko ko daal di ko koy delloo ci njëkk ak teraanga révélation yooyu naka moom Awa Baldé ma ko defee daba live boo xamante ko doon amal la yëkkatee kaddu yooyu jëmale ko ci Abdou Aziz Aly Ndiaye tawal Baba Amdi ak Mirma keneen ka ca yëkkati waat ay kaddu moo di Sidaat Cuun Sidaat kaddu yoo nga a ci télévision bi gannaaw ba toog na 14 ans dencoon loolu waroon na ko mën a deewaale ndax kii di am di góor la te jamono ji mi ak soxnaam yore ay doomam nekk na loo xamante ni naka kii di Sidaat Thioune ma nga koy ñaawlu bañ a rafetlu jëf ji nga xamante ni murement jëf na ko émission boobu gona di wax ci passeem moom ak Baba Amdy da ko gën a metti ci diggam ak moom moo di ni trompé nga xamante ni kii di Baba Amdy trompé na ko moom murement loolu daf ko metti te du ko baal Baba Amdy benn yoon du yooyu naka kii di Sidaat Thioune di wax ni murement waru ko woon a génne gannaaw ba dencoon na ko lu yàgg na ca yëf baaba am ndeka miir maa ba léegi keneen ka ca waxa di père Lamine Ndiaka ay waxam soriwul ca mbir moomu ndax bay lambar lambar moo lambar lambari woon wut si ko laaj ci coowal baaba am ndeka miir ma ay la ko ca père Lamine Ndiaye tontu lu gàtt rek la di sama yoon nekkul ci seen yëf lenn la ma ca xam ba xam ko ca mooy kii di baaba am di góor la liggéey bu série famille sénégalaise bu entretien boo xamante ne gis nañu ko moom bigée naka waxa yi nga xamante ni wala kàddu yi nga xamante yëkkati na ko ca entretien ba mooy laaj ba ko journaliste ba laaj li xew jamono ji ci biir Sénégal ay moom bigée soriwu ca lenn rek la muy xam xamal sénégalais moo di moom bigee xul cigarette te te naanul sàngara lenn la xam ni daal dina ko def léeg-léeg mooy dina tox chicha waaye à part loolu demul dikkul lijjantiwul kenn xel ci waxi kenn ca la mu nekk rek la ne gis ko ci moom bigee rôle ba nga xamante ni mu ngi koy jouer ca biir série ba daw wutali ndiku borom mbaxalu mbaar yi ndiku jamono ji nga xam ni tiktok bu sénégal def ko poñe gis nañu kaddu yo nga xamante ni yëkkati woon na ko doon ko wax ak benn faram ab vidéo naan ko sa yaayu mbaxalu mbaar yi laa tax na naka xale yu bari ci sénégal a jël challenge boobu di ko challenge ci seen ay vidéo ndiku naka ca benn entretien ba mu doon def ak waa Fekke TV da yëkkatiwaat ay kàddu wax ni naka loolu ba mu amee biir réew mi ak biti réew fépp fu waay mënti nekk te xam ko rek yëkkati nga sa téléphone woo ko di wax ak moom ci comportement wala kàddu ya nga xamante ni yëkkati woon na dana am na ci ñenn ñoo xamante ni woo nañu ko di ko wax naka lii war naa tax nga xoolaat sa bopp bu baax a baax xam bu baax a baax nooy taxawee ku naka mënta sax yëgali kàddu yooyu ndax tuur ay xéwal rangoñ yi dal ci dënn muy xamal sénégalais yi ni na yooyu mu daan def it toog na diir yàgg ci boîte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 xale yi def tuuti chape góor yi def ay déchiré ma génn fi ma sàpp daan daan ñëw ñu bëgg leen le 3 juin 2023 yéen ko doon laaj seen bës gi noonu dem leen ngeen jënd seen billet yi nag bëgguma benn coow bëgguma coowa. Ah. la ilaha illallah kenn mës ta gis nii. ay Wally Ballago Seck ñibbi nga sa dëkk. del déglu del xool.